situation bi grave na euh, situation bu grave bi yow nga tecc sa ñaari journal yi di sunu lamb ak stade euh, bo xolé situation bi ci E-Média weer japp ben weer ken ko euh, Futur Média GFM tay lundi 25, am nañu jotagul salaire Pastef ñi nga tëdd fa ñu tëdd lool am bu tasum xabaar yi daanu ña fay liggéey sëngéem ay boroomi kër ki kilifa yu yor ay njaboot ak i bakkan war leen dundal pour ñu torox est-ce loolu tamit eh, da ngeen toog fi ngeen toog fii rek eh, Mamadou Rakane di ko seetaan. wax lu la. nu mu tudd. tubaab naa leen gars ci lu ne baa yéen a ngi bu baax a baax a baax. dégg ngeen bi nga xam ne Babacar Fall yëkkati na ko mu jëmati ci waa Pastef moom Babacar Fall nag lépp loo xam ne nii buub na ko ci lu bon ci réew mi waa Pastef la koy xëpp li nga xam ne ñoom moom lañ nekkee ci ay jafe-jafe Babacar Fall nee na ñii di waa Pastef dañu cee kontaan dañu cee bëgg ci jafe yi nga xam ne nii ñoom journaliste yi ak ñoom groupe de presse yi ñu ngi ci nee na maanaam waa Pastef dañ cee kontaan Babacar Fall nit la koo xam ne lépp loo xam ne buub na ko ci lu bon rek waa Pastef la koy jëmale ndax bu fekkee ne moom Babacar Fall moo mën a yëkkati kàddu yi jëmale ko ci ñoom xanaa mu jëmale ko ci waa Pastef ndax ñoom ñoo fi nekkoon di dund ci ay tappale ñoom ñoo fi nekkoon lànk bañ a fay impôt ci mu njuuj njaaj képp lañ ko tegoon ñoom ak njiitu réew moo woon di Macky Sall loolu nag président Ousmane Sonko ne day dakk loolu moo waral seen coow lii ñu nekk loolu moo waral seen coow lii ñu nekk yéen waa Pastef dañ leen di defar ndax dañ leen a fekkoon ngeen yàqu waaye ay nit ngeen ñoo xam ne wax fa dëgg yàlla ñeen ñenn ci yéen kàddu yi ñu yëkkati ñaaw na lool rawatina yow Babacar Fall c'est honteux ginnaaw loolu dañuy déglu docteur Diallo mom yëkkati na ay kàddu ñu teewlu Sonko sen bay la. Sonko c'est un choix de Dieu yag na leen ko wax bo bëgg xam Sénégal kuy nitu yalla ku nekkul nitu yalla rek xolal ku bëgg Sonko ak ku bañ Sonko billahi la ilaha illallah et ça je vous ai juré toujours du ma waxoon te ma wax la affaire. waaw eux tous ils vont aimer Sonko par force. daw an wa karhan seetaan d'ici un an tay waxati na encore.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

Sonko moo la gën barki si wali barki Seydina Mohamed Sonko du jàkkaarloo ak yàlla mu ñaan yàlla yàlla bañ a nangu parce que sàccul lëkkulu lewul fenul saagul jowul te du jow ah du gaaruwaale Ousmane Sonko waaw te ñi fiy wax ñépp moo la raw ci alxuraan gën leen ragal yàlla parce que ni gis nga ça ne sert nga jàng téere àdduna yépp fekk ragaloo yàlla كحمار يحمل أسفارا سنكو دارك اللي يلدي في سنغال بوفي تحو سنكو تحو بوينا ويل فري ميزر ما سنكو نجي يخل نجي واحد ديك بس كدا دقو مو من جسم سكي جدي المؤمن لا يكذب من من جسم سكي جدي داكو من دي سنكو مو غن سنو باي نك جوليت والله sama baay am sax sellul li kon dimension Sonko kawe na de docteur. non pas kawe raw sama bay kay yomb na. même avoir euh ki nga wax sank nga xam mo xuma ken dama ne rek fi nah. <laughs> acca du terrain politique du meuna a na ñew ci connaissance na ñew ci l'islam li nga xol na ñew fofu sax son ko meuna len fa duma. ah. mën na leen a duma ci terrain l'islam aussi mos ngaa dégg Sonko xuloon ak famille am sëriñ boo fi tudd di mbéb bépp xuloon ak famille am na famille xas na famille ba ñëpp dégg ko te loolu du cëru sëriñ ça kii man j'assume ce que j'ai dit la may wax di sëriñ bu fi yor xaw ma raw xaani président la république yow nga yor parti mënoo fal président sa candidat mënul sax am 2 pour cent triste quand même. Hein En enseignant, en istijab, arrêtez quoi. Donc, biñ nekk ak Sonko am nañu ay député bi Sonko génné ci ñoom hmm. par ben ngay dégg Sonko do moromu kenn politiquement parlant même imanement parlant ma parlant du moromu kenn ma parlant donc imanement parlant ma parlant imanement parlant ma parlant dafa am islam iman ihsan sharia tariqa xaqiqa du ci morom kenn. docteur Diallo yéegal na niveau bi ba mu kawee président Ousmane Sonko nag jot na ñu jàngale kan mooy président Ousmane Sonko ndax bu ñu dégloo docteur jàll mii ñun dese nañoo xam kan mooy président Ousmane Sonko desee nañ koo xam dañoo war a jàng kan mooy président Ousmane Sonko ci lépp Ousmane ni muy politique Ousmane ni muy waxtaane Ousmane ni muy defee. Ousmane ni muy communiqué Ousmane jot na sénégalais yi jàng Ousmane mais docteur Diallo tay dafa gëna yéggal niveau bi ci walum xam-xam mom Ousmane yéeg na ba ca kaw ci walum xam-xam Ousmane nga ca kaw ci walum def ak dindi ci walum def ak dindi Ousmane nga ci kaw Ousmane day def Ousmane day dindi kenn wul yalla la nak teguñu ko place bo mais yalla day jël ay nitam jox leen benn niveau yàlla day jël ay nitam yéegal leen ba ci kaw Ousmane nag yàlla da koo yéegal yàlla yéegal na Ousmane ci niveau bu kawee boo xam ne ni bëriwul ay nit ñoo xam ne yàlla dina leen yéegal ci niveau boobu foofu la docteur di wax maanaam Ousmane wallaay booy wax ci moom sax ñu soxor ñi toog di la déglu mën nañ laa mere ci ne kii li muy wax mais Ousmane nit la koo xam ne dañ koo war a xamle maanaam mbirum yàlla ba yegsee dañ ko war a yaatal ci ni lii mbirum yàlla la yàlla moo ko wàcce ndax yàlla dafa am ñoo xam ne da leen a may benn niveau bi yàlla nekkul ne ñëpp lay may benn niveau dafa am ñoo xam ne yàlla dafa gàttal seen niveau am ñoo xam ne yàlla dafa yégal seen niveau mais Ousmane yàlla niveau bi ni mu ko yégalee dafa jéggi dayoo Ousmane yàlla dafa yégal niveau saa tëdd mais docteur Diallo nag wax na lu am solo quoi wax na lu am ama am solo ndax Ousmane niveau bi mu nekk mosu ñoo gis benn politicien bu ci nekk ndax gis nañ politiciens yi nga xam ne dañ daan jéem a yéegal seen niveau buñ demee ci kër kilifa yi diine yi naan dañuy wax ay aaya di jaxase gis nañ ko ci Macky Sall gis nañ ko ci Antoine Diome ñoo xam ne dañ daan dem ci kër kilifa yi diine yi ñu sas leen ñaari aaya ñetti aaya ñu ñëw rek bëgg a toog commencé yuriku di jaxase rek te Ousmane gis nañ ne moom aaya bu mu wax aaya bu mu wax ni jàngal Alxuraan dañ koy jëlaat wane ne ne kii li mu wax nii non yéegal na niveau bi ci wàllu politique ci anam bu ne yàlla ko yàlla defal jàmm buñ si jógee dañuy déglu ci benn waay boo xam ne wax fa dëgg yàlla nii ñooy wax a wax a wax ba dugal seen bopp ba pare ñenn ci sénégalais yi toog naan defuñu dara nañ leen bàyyi kii kàddu yi mu yëkkati ku ko déglu xam ne ni kii mooy dugal boppam buñ ko dégloo da ngeen xam ne kii moo wax ba dugal boppam te tey buñ ko woo ko kaay wuyu wala ñu ne ko kaay li nga waxoon jaaraat bi mu jéem a jooy wala mu bëni bët ñu déglu kàddu yi nga xam ne fësal na ko. benn loolu benn la bi ci des bu gën a garaaw te gis ko ci yeneen i réew bugguma leen ko ji mais on va vers vers série d' assassinats dans ce pays d' empoisonnement. ça c'est la méthode des ça c'est la hein. méthode non mais je te dis la vérité. c'est grave non mais je sais. pas c'est dans les prisons. non déglu rek ba wax li ma la wax franchement xam naa li ma la wax. je l'assume. waaw dama ne.

par exemple waaji ba dafa gaa dafa gaañu. Mamadou man automatiquement dafa am lu ma dikkee parce que damaa nekkoon ci yeneen i réew yoo xam ni. Mhm. di jax di di jëflanteeg ay doomu aadama yoo xam loolu moo nekkoon c'est des c'est des tueurs à gages wax nu ñuy éliminer ay doomu aadama ma leen di ñawar. benn al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Moukhtar Mbacke radiyallahu taala anhu borom fas fas nga xam ne ci ngóoram rek lay dox sëriñ bi fas nga ñu lakk waaw moom ñëpp xam nañ lay mbiram kenn nattab léewtu ko képp koo xam ne dangaa nekk mag ba ndaw am jafe-jafe néew kàttan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santiroota sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kàttan loolu ci senegal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy njëriñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox. du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw.

il avait parfaitement raison de s'en méfier. Quel kuy acteur politique nga diriger wala nga bok ci nga troisième voie nga alternative il faut nga jël ses nga dem antidote ak foko ma demal euh, Israël au niveau de Mossad nga jënd y aura des tentatives d'assassinat d'empoisonnement des tueurs à gages soit des des des des des des des snipers. moi c'est moi qui te le dis je ne le souhaite pas mais malheureusement fallait parce que ñi nga nous kon daal am réew nii lay doxee da ngay wax lu la neex te dara du la ci fekk moom mi toog wax naa wax wax ba ne xaaw ne ñii fi nekk wóoluwu leen mën nañoo def nangam mën nañoo def nangam mën nañoo rey mën nañoo rey lii la wax ba pare dara du ko ci fekk ndax tey boo woon kaa yu am ñenn ñu taxaw ne dañ ko bëgg a jaay doole wala ñenn ñu taxaw ne réew mi li fi am mais réew du doxee nii. nit ku tok ne ñi fi nekk wóoluwuma la ndax mbir amon na nangam ak nangam mën nañu woo ay nit di leen ray di leen jox ay jëssit wax li ngay wax yépp ba yeggal dem dox say soxla te dara do la ci fekk réew ni lay bu gan gi dañu mëna won ci kassa ba la tax fa lek na nangu fa naan nangam réew ni lay doxe réew mi nak bu fekkee ni lay doxé bay bo ñu jëliwaat Macky Sall bu ñëwaat ndax mag yi moom day rey day tëj kii li mu wax nii te dara du ko ci fekk dem naa ci ay réew ñu def nangam ak nangam kon ñii fi nekk man wóoluwuma leen ndax ñoom jàpp naa ne mën nañoo def nangam ak nangam du ma leen weddi du ma leen niimal am réew ñii lay doxee kàddu yi mu yëkkati ba pare doxi soxlaam dara du ko ci fekk ndax am réew nii la war a doxee. am réew ñu ko jiite dañuy bañ ñu mere leen wala dañuy bañ ñenn ñi yenn waga yi yor seen làmmiñ di wax te ñoom kenn du leen lijjanti ngir buñ leen laalee yenn waxkat yi jóg te kii lii mu wax nii dara du ko ci fekk li wax rëy na de li mu wax nii Moustapha Diakhaté sax waxu ko mën nañ laa làq ci seen ginnaaw pale ray la jox lay jësi gis naa ko ci yeneen réew yi kon ñi fi nekk du ma leen miimal dara luñ ne ñoo ko def rek moom du ko miim réew daal ñi lay doxe toog wax lu la neex dara du la ci fekk ah! waxam ji de rëy na ju rëy la wax wax ju rëy rëy rëy la wax kii dañ ko waroon a woo kii dañ ko waroon a woo yi Macky Sall kenn musta dégg kàddu yu mel ni jub kenn musta dégg lii ñu wax ko ci nguuru Macky Sall du kenn léegi nag bu njëkk da nga daan gis ñi ànd ak nguur ñoo daan am fit maanaam di wax yenn wax yi waaye léegi ñi ñuy woowee ay opposant ak ñi am ak ñoom ñooy yëkkati yenn wax yi di ko wax moo tax ngeen xam ne réew mi réew mi réew mi réew mi am na lu fi dugg ndax léegi nit day toog bi wax dara du ko ci fekk te bu njëkk da ngeen bu njëkk nguuru Macky Sall da ngay toog wax nga jógee ci fi ngay waxee mu ne la coppet yóbbu mais léegi loolu amul te woo def dara jamonoy Macky Sall te léegi da ngay toog def ba pare dara du la ci fekk kii li mu wax ni moo gën a garaaw sax li mu Moustapha Diakhaté wax kàddoom yi waaw baax na yàlla nañu yàlla defal jàmm te musal ñu aar président Diomaye aar premier ministre Ousmane Sonko ba waxkat yii ak fenkat yi ak kàcckat yi musal leen ci seen làmmiñ yi yal na leen yàlla defal jàmm président Diomaye ak président Ousmane Sonko aar leen iir leen ndax réew mi lu koy yàq ngi ci biir réew mi réew mi lu koy yàq ngi ci biir réew mi yal na yàlla defal jàmm